léegi nag dafa am euh, formulaire fiscal supplémentaire boo war a remplir bu concerné Google Irlande waaw loo moo tax AdSense léegi di ko euh, di ko di ko proposé ci biir AdSense bi soo duggee sa AdSense fii su fekkee yaa ngi accueil nii comme ni ñu nekkee accueil doo ko gis nii mun na bañ def dara quoi voilà mun na la bañ a demal defal tam notification nga dugg fii AdSense euh, pour YouTube mën na fi bañ nekk tamit voilà comme nii xaar mu chargé ñu xool voilà fii tamit mën na nga ko bañ a gis. soo gisee fii tam notification bu rouge mun la da nga war remplir fiscalité cliquer ko soo ko gisul voilà mun nga ñëw fii fi ñu def ni information de paiement information de payman nga cliquer ko soo cliquer information de paiement gis nga mu indi la ko fii voilà mi ngi nii voilà moo ngi nii AdSense Sénégal xam nga am na YouTube Sénégal mais AdSense Sénégal mu officiel la ko lan la ñu wax mu ne ñu pour éviter tout retard de paiement et garantir que le bon montant de taxe est appliqué Veillez à fournir vos informations fiscales dès que possible pour ce pays ou cette région fan Irlande maanaam mu ne soo soo bañee maanaam am say paiement yeex te nga bëgg maanaam sa paiement yi ni mu doon fonctionner normal mu continuer di ko fonctionner maanaam ay taxes yi la war a appliquer ak yu deme na yëpp muy demee ni mu doon demee bañ am benn jafe-jafe am ci maanaam joxeel information fiscale yi nga xamante ni dafa concerner dëkk bi wala zone bi muy ban muy Irlande. suñ ne Irlande nag mun nga ne ah ñun ban relation la ñu am ak Irlande voilà am nañu relation ak Irlande ci AdSense lu tax parce que AdSense biy dox Sénégal ci Google Irlande lañ ko rattaché suñu paiement yi di ñëw fii Sénégal di jóge si YouTube jaar AdSense si Irlande la rattaché maanaam maam Irlande ñoo ko géré <laughs> kon bokk voilà ñoo ñu géré ñun ci wàllum lu jëm ci fiscalité AdSense yi ak YouTube yëpp yi ñuy wala boog paiement yi lépp monétisation bi. ci Google Irlande lañ dépendre ñu voilà loolu la loolu moo ñu booleeg Irlande moo tax fiscalité Irlande bi daf ñuy concerné ñun Sénégal léegi lan nga war a def boo gisee lu mel nii c'est très simple formulaire fiscal ngay remplir rek occasion la tamit formulaire fiscalité bi dafa am ay changement yu ci amoon occasion la ñu wanewaale ko tuuti voilà du lu du lu du lu am solo trop mais par rapport ak bi ñu mujjee def am na tuuti coppite yu ci am léegi boo gisee message bi soit nga ñëw fii nga gisee ko nii moo gisee nii wala ñu defal la ko fii mu rouge ci kaw defal la action cliquer action waaw c'est clair soo cliquer action wala nga cliquer fii fan la lay yóbbu ñu def ajouter les informations boo cliquer action bu dee da nga gis message bi ci kaw wala nga ñëw jaar ko fii ma ko jaar page bii di ubbeeku même chose fii la lay indi foo ko munti jaare fii la lay indi comprendre nga li ñu liiroon fee rek la ñu bindal fii résumé comprendre nga. bu ñu wàccee tuuti mu defal ñu gis nga maanaam formulaire fiscal bu États-Unis remplir nañ ko ba pare mi ngi nii formulaire fiscal W8BEN approuvé mooy remplir nañ ko ba pare léegi lan la ñuy def dañuy remplir bu bees bi fii ngay cliquer ajouter des infos fiscales nga cliquer ko soo cliquer fii page bi mujj bi résumé nañu li nga xamante ni moom la ñu war a def mu ne lan la devrait vous prendre entre 3 ak 5 minutes maanaam li nga war a def du yàgg quoi voilà. Vous devez fournir un document au format PDF, PNG ou JPEG, par exemple un certificat de résidence fiscale, un document d'exonération fiscale ou des statuts maanaam constitutif maanaam mën na am ñu laaj la ay ay ay document document mën na nekk PDF mën na nekk PNG maanaam fekk image yi nga moom mooy moom la ñu accepté pour mu jàll pour bu ñu la laajee document voilà exemple mën na nekk certificat de résidence euh, mën na nekk euh, li nga xam moom mooy document exonération bu dee entreprise nga yor nga am exonération et cetera et cetera maanaam pour wane ni bu dee yow da ngaa loolu nag lii mi ngi nekk bu dee yow détail bu solo la su dee da ngaa choisir ni maanaam sa dëkk dafa am ay convention fiscale ak li nga xamante ni mooy États-Unis su boobaa mën nañ la laaj ay document waaw loolu la mu def fii vérifier que le document que vous importez et le cas échéant en couleur maanaam document bi ngeen lay laaj nga joxe ko na document bi leer photo bi na leer nañ te na nekk en couleur voilà beneen bi suuf mu ne vérifier dans les paramètres que vous utilisez bon profil de paiement vos informations fiscales seront appliquées profil de paiement actif maanaam nga vérifier tam ba xam compte bi ngay nga connecté mooy compte bi nga bëgg envoyer information fiscale maanaam document yi nga bañ a jaawale nekk ci sa beneen compte léegi fii ngay cliquer remplir le formulaire soo ko cliquer nag ñaar mën na am mën nga cliquer directement rek mu yóbbu leen remplir formulaire bi mën nga ko cliquer mun la dugalaatal sa mot de passe pour ñu vérifier ba xam yow borom compte bi yaa koy def comprendre bu la demandé tam boobaa da dugal sa mot de passe rek confirmer léegi ñu cliquer remplir le formulaire suñ ko cliquer ñu xaar bu ñu demandé mot de ñu dugal bu demandé wul nga activité maanaam ban activité la ñuy def ñu cliquer fii suñu cliquer ñu def personne physique la maanaam nekkuñu ONG nekkuñu société de personne nekkuñu société par action maanaam personne physique mooy particulier nga def personne physique comprendre mi ngi dépendre nag ci AdSense bi lan nga defoon bi nga koy ubbi su fekkee AdSense bi da nga defoon compte entreprise la entreprise ngay def su dee da defoon particulier la nga def personne physique c'est très c'est très clair voilà soo bàjjee fii mu defal la exonération fiscale êtes-vous éligible à un taux de retenue réduit en vertu d'une convention fiscale maanaam ndax yow réew bi nga nekk sa diggante réew bi nga nekk diggante bi ak États-Unis dafa am ay convention yu ñu signante ba tax yow doo fay taxe nga ne non non voilà jëmbal li jënd sax Sénégal ndax am na convention état jàpp naa ne amu ko loolu laa jàpp mais wóoruma waaye nag du ma dugg si na waaw mu may demander ay document yoo xam ne yoruma ko voilà. mu la ñëw fii êtes-vous éligible ou taux réduit maanaam ndax am na yeneen exonération maanaam yeneen wàññi yoo xam ne wàññil nañ la ko ci wàllum impôt ak yu demee noonu ma ne déedéet voilà su ma nee déedéet léegi lan laay def ma cliquer fii envoyé voilà su ma defee envoyer gis nga def na accepté nañ ko maanaam jàll na formulaire bi jàll aussi simple que ça c'est pas compliqué voilà léegi nag comme ni ma def nii su fekkee danga defoon compte particulier defal exactement li ma def soo deful loolu. da lay demandé waat ay document gis nga xam waxoon na mën nañ laaj ay document PDF ay nangam nangam photo ko ay bi na leer ak nangam laaju ma dara lu tax parce damaa def formulaire bu gën a simple possible mooy personne physique laa du ma entreprise maanaam sama activité bopp dong amul benn convention bu ma sama dëkk signé ak États-Unis de jeex na su ko fekkee ñoom dinañ la appliqué li ngay gagné États-Unis kese xam nga fii tam ñu leeral fi tuuti ngi nii leeral tuuti mooy ñu bëri li ñu dul comprendre ci fiscalité li ñu leen di dagg maanaam li ñu lay dagg ci fiscalité noonu ngay dugg sa AdSense des ñu la dagg nañ la am gagné par exemple gagné nga 300 euros dagg nañ la 20 euros fiscalité nga li ñu ma dagg daa bëri am na benn waay bu ko doon wax non ma dagg daa bëri ma ne ko nag kontaanal lu la dagg lu mu gën a bëri mu gën a baax parce que sa 300 euros yi tax ñu dagg la 20 euros mooy li ci ëpp da nga ko gagné États-Unis su fekkoon ne gagné woo États-Unis dara doo kon boo mool yaa ngi ay 150 euros. États-Unis seeni revenu AdSense dafa baax plus ay nit seetaan dafa plus say revenu di gaaw a gonfler ñoom nag li nga gañe États-Unis kott dong ci lañ lay dagg vingt vingt vingt et un pour cent ab vingt quatre loolu mel ni sax vingt et pour cent la comprendre su fekkee ni da am ay vidéo nga gagné par exemple 1000 euros 1000 euros yëpp li nga ko gagné ñu ngi la seetaanee Sénégal ay France ay Côte d'Ivoire ay Maroc Afrique du Sud nangam nangam dañ lay fay sa xaalis totalement 100 pour cent am bu ñu fay duñ leen dagg dara. lu tax parce que amul seen benn vidéo bu ñu seetaanee États-Unis su ko fekk sa xaalis yaa ko moom point final jeex na su fekkee nag dangaa ngaa dugal ay vidéo vidéo ya nga am ay vues yu bari yoo xam da nga kaa am États-Unis am nga par exemple un million de vues cinq cent mille vues yi Amérique lañ la ko seetaanee cinq cent mille vie yooyu dong la ñuy jël li nga ci gagné ñu dagg ci vingt et un pour cent c' comme ça que ça fonctionne waaw nekkul dañuy jël sa xaalis yëpp dagg li nga gagné États-Unis dong la ñuy jël ak li nga gagné total nu mu mën ci toll. parti bi nga xamante ni moo concerné li ñu la seetaan États-Unis loolu la ñuy jël ñu dagg la vingt et pour cent soo defee remplir comme ni ma def nii. su dee am nga million de vues million de vues yëpp yaa ngi ko gagné Sénégal kenn du la dagg dara comprendre parce que gagné woo ko États-Unis waa États-Unis mënuñu la see dagg li nga gagné États-Unis kase lañ lay dagg vingt et pour cent yaakaar naa loolu leer na n'est-ce voilà noonu lay fonctionner moo tax soxlawul nit ñi di ko def tracasserie léegi nag li ñu la dagg fiscalité lu mu gën a bëri moo gën a baax ci yow parce que lu muy tekki mooy li nga gañe bëri na États-Unis moo tax ñu la dagg bëri te li nga gañee États-Unis su su fekkoon bëriwul bañ dagg loolu bëri suñ ko su fekkoon gañe woo dara États-Unis say revenu na bañ a bëri parce que états li nga fay gañe mooy a ëpp doole li ngay gañee dëkk yu mel ni Sénégal ay Gambie ay Mauritanie ay nangam nangam kon ñu xamee ko noonu fiscalité lu mu gën a baax mi ngi mel ni ngay liggéey taxe normale ni si gouvernement si si si entreprise Sénégal lu ñu la gën a dagg ay taxe mooy sa entreprise mi ngi dox entreprise bu doxul kenn du ko dagg dara voilà aussi simple que ça <laughs> voilà kon vidéo foofu lay yem euh, fiscalité supplémentaire la woon muy yi nga xamante ni moo concerné Google Irlande jërëjëf